اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبر انا عربي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولي سن بوكو دارا با مختار سيلا مولين دي نيو بو باخ دي زيار di leen baalu xàq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla boo leen jéggal ci kàttanam ci mbaaxam di nuyu kilifa yi réew mi yëpp jiital ci nag kilifa diine yi mooy xalif général yëpp nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla wér ñaanal leen yàlla kàttan waaye nuyu kilifa aada yëpp jiital ci ki nga xam ni moom la yàlla jiital ci réew mi di président Macky Sall ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér may ko kàttan naal yi mu naal ci réew mi yàlla may ko mu àggale ko jàmm ak sago ñu ñëpp ñu fekkee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñëwaat ak rek ci seen yóbbalu àjjuma yi ñu leen daan baaxoo di leen ko defal te lépp ñu teg ko ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye teg ko itam ci njàngale mag ñu baax ñu nekk ci réew mi te seen njàngale génnul njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni jamono yi ñu ngi jub xew-xew yu rëy xew-xew yu mag muy ay élection ñu war dem ci élection yi vote. tànn njiitu réew njiit nag dañ koy tànn rawatina njiit loo xam ni moom ngay jox sa réew ndax réew li mu ëmb dafa yaatu nitu yàlla yaa ngi ci biir réew mi waliyu yaa ngi ci biir réew mi kilifa aada yaa ngi ci biir réew mi te ñun ñépp ñu ngi ci biir réew mi kon kooku buñ koy tànn dañ ko war a tànnee nu rafet dañ ko war a tànnee ci kaw jàmm dañ ko war a tànnee ci biir ci kaw salaam loolu moo tax tey suñu waxtaan ñu koy waxtaan di ko delloo ci jàmm waaye di ko delloo ci jàmmoo waaye waxtaan ku tudd jàmm xam nga ni am nga diddu jàmm maanaam contraire jàmm loolu mooy lan mooy fitna su jàmm amee fitna daf fiy jóge su fitna amee jàmm daf fiy jóge te sëriñ Abdou Aziz Al Amin dafa daan wax ni lépp loo am te amoo jàmm di ko jaay jëndee ko jàmm lépp loo am te amoo jàmm loolu da ko jaay jëndee ko jàmm si lool nag moo tax ñu bëgg nit ñépp wut jàmm jàmm duñ koy wut ci ñaar dañ koy wut ci làmmiñ dañ koy wut ci jëf yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu wax ni kan mooy jullit daf ne woon al muslimu man salimal muslimuuna min yadihi wa lisaanihi min yadihi mooy doo def loo xam ne du jàmm doo ko def doo ko doo ko bind sa lépp day nekk jàmm sa làmmiñ tamit day wax jàmm su ne sa làmmiñ day wax jàmm mooy lépp looy wax na fexe ba bul wax loo xam ne day yee fitna bul def loo xam ne day yee fitna soo déggee yonent bi wax ci xadis ni al fitnatu naaimatun laana allahu man ayqasaha fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na rëbb yàlla mooy yàlla soreel na yërmande képp koo xam ne day yee fitna alquran alquran wax ni wal fitnatu ashaddu min al qatli yàlla nee na nga yee fitna nga tëral benn nit nii nga rendi ko rendi yàlla nee na moo ma gënal nga yee fitna ñu ne déet yàlla rendi nit mu ni waxuma la sax nit nga rendi ab jullit moo gën nga yee fitna ci biir julli ñi te xoola kaaba gi li muy màgg màgg yonent bi nee na soo ko tojoon ba mu nekk ab dóom nga ëf ko mu naaw moo gën a sedd rey benn maanaam loolu moo gën a sedd nga rey benn jullit parce que ormay benn jullit moo ëpp doole ci yàlla ormay kaaba gi ak ni kaaba gi toll ak yaakaar ya fa jëm yonent bi nag ni jullit boobu nga rey ko moo gënal yàlla nga yee fitna ñu ni déedéet lu tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni fitna soko ko manam maanaam li fitna bi di def limi indi manam mu muy upp doole ci musiba ak fitna rendi won ab julit parce que tay da nga yé fitna ci ci wax wala nga yé ko ci jëf ñaata nit a ciy lor ñaata nit a ciy dee loolu tax mu ni wal fitnatu ashaddu min al khat fitna nag damay wax ni kenn ku nek war na kam yé xale sax man na yé fitna ñuy wax mais mak nak du yé fitna kilifa du yé fitna

ci juróomi nit yi nga xam ni ñoom ñoo wax ni ñooy wut réew mi ku koy wut tamit na nga ko wutee ngor parce que yenn saa nga dégg kenn taxaw di campagne poser nit ñi benn question pour ñu répondre maanaam ful bi mu nekk mu poser leen benn question question bi mooy président bi fi nekkoon di Macky Sall lan la fi def loolu damay wax ni même yow mi koy laaj yow mi koy laaj sa xaatir sa xel mi ngi lay tontu. Macky Sall moom lan la fi def loolu jarul wax wax dëgg yàlla neexul ba neexul def na fi man mii wax man daara laa yor saaku ceeb jënd naa ko vingt mille Macky Sall bi mu yéegee léegi ceeb yokkuwul man dama lay wax li mu fi def Macky Sall bi mu fi nekkee léegi dëwlin yokkuwul Macky Sall bi mu fi nekkee léegi suukar yokkuwul saabu yokkuwul li nga daan amee benn gaz moom ngay amee ñaari gaz tey kon lan la fi def loolu jarul wax facture courant yi yokkuwul facture ndox yi yokkuwul kon loolu bilan buñu meuna wax ñaareel ba Tiwaawan nga ne man fa laa bokk suñ naan gàmmu Tiwaawan des na ñaari weer mboolem kuy sol yére bu vert ñu lay tuddee koskas bàyyi nga sa soxna bàyyi sa dom bàyyi sa waa kër dem Tiwaawan nek fa xam nga lo fay liggéey di bâche 1 mois pour fu ñu gamu gàmmu amatu da ngay bàyyi benn gannaaw suba la nga ñëw dugg ci résidence bi ñu tuddé Cheikh El Hadj Malick te ni mu amee Tiwaawan noonu la amé Laayeen ci kër maam Limaamu Laay mu bax ma non la amé ngi ndiasa ci kër maam Bu Kunta mu bax ma non la amé Kawlax ci kër maam Abdoulaye ness mu bax ma Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu mu dem Touba xam ne Touba tabax nañu loolu la ñëk ñu tuddé ko kër mak mom gan gumu am gu yiw fa lay nekk مقتل لين اوتور ابياج تدك الى توبا كون كي دافنا في دارا كون بوما الوخي لان في لي لو ممكن داف مون كاي داغنا امنا لو مو امنا لو داف واي دافو في دارا كوكو با مختار من كو ديك سين بابا كرنا مو وخون فالحق يعلو ولا يعلى عليه نعم فمنكر الحق في الاسران والدين سين بابا كرنا مو وخون ني kaw rek lay jëm mu ne dëgg dëgg nit su defee dëgg lu muur muur dëgg gi dëgg gi day jóg di dem loolu la fi def ñeneen ñi bëgg réew mi nag yaakaar ni man leen fee def lu ëpp li nga fi def lim fi def nan tàllal loxo laaj ko ci ngor laaj ko ci teraanga su ko yàlla joxee seen tegee seen loxo ñu continuer liggéey waaye Sénégal nag dëgg dëgg nag président Macky Sall li fi liggéey xool soo boolee li sengoor liggéey jàmbaar boole li Abdou Diouf liggéey jàmbaar boole li président Ablaye Wade liggéey jàmbaar ñoom ñetti ñépp liñ fi def settaay Macky Sall yi moo ëpp seen mexchaarul erchaar ba dabu ma mexchaarul erchaar ci arab mooy fukk nga xaajaat fukk ba fukk benn bu mujj ba ñoom def nañ ko donte ay jàmbaar la raay de nii teer bi dem ba jam ñaaju moo fi rëdd du ko fi def kon kii jàmbaar la kon waxuma lan la jox réew mi de ku mu neex nga ku neex واي منكم نيكو جيرجف باسكو دفنا في دارنا دفنا في دارنا باتو دفو في دارا تا باتو دفو في دارا بوبو نيكول واخ بو ام نيكول واخو دغ بات بوبو كان واخ دفنا في لي في دف كاي نني نيوك ولا نغير دف واي دفو في دارا لولو منو مكو گم كاو كاغي ني بو فا ديمي مان كاو كاو لا سونو دك ييب خوتي نفا اي فوراج dëkk ñaata dëkku kaw kenn mësul xalaat dëkku kaw buy am courant ñun mësuñu ko xalaat soo demee dëkk suñu dëkk yëpp tey am na courant ñu ngi taal ay lampe waxuma ay solaire courant ñu ngi koy taal dëkk yi nga xam ne courant bi jotul fa taal na fa solaire parce que xam na ni ci réew mi lañu bokk kon nit ki suy wut dara da ngay wute ci ngor wute ko ci kàddu gu dëggu wute ko ci ragal yalla parce que kuy laaj rew te il yalla kuy laaj rew te wo kuy laaj rew te il wo kuy laaj rew te amoo kóolëre ah man de pas Makhtar woluma la pour jox la réew yii su de ci yow mo wóolu sen bokku daara pas Makhtar sil mo len pas jox sen yobulu bis def ko nak ci élection yi parce que moy wax ni lu kulli makaanin Pas hmm. place bu ne dafa am luñ fa wara wax lo tax jamono yi ñu wax ni nag élection yaa ngi bu kenn sànni bu kenn toj bu kenn taal kenn ku nekk bu bis ba daal sangul ba set ndékki ba suur sol si yére bu rafet dem voter ki nga bëgg a ki yàlla dogal mu gañ réew mi mu gañ ñun ñëpp ñu nekkaat ay Sénégal na àndandoo waat liggéey damay wax ni man am na ñuy laaj réew mi yoo xam ne gëw ma ni bëgg nañ réew mi bëgg naa réew moo xam ne yow balaa ngay ñëw ci réew mi rek élection jot campagne ba campagne lañ lay gis. nga campagne so ñaké réew mi dem yow sa jabar sa dom ngeen demaat yaay ngi Londres yaay ngi États-Unis yaay ngi France ba campagne jotat nga ñëwaat. Hmm. deux ferme kenn gisul ci réew mi. ba campagne jot rek nga ñëw ni xaaral ma ñëw taalaat réew mi yëngalaat réew mi demaat. Hmm. ki fi nekk dootuma ko may sago. lii yow tamit du nit yu baax du jëfu nit ku baax loolu nag même ki koy jëf na ko jëf mais nit ñi buñ ko ci fekk. Hmm. réew dafa am lu muy tëdd ku bëgg réew da fay nekk waye ko xamni xol bu bu nekkee ci ful bi do gis doomam do gis jarbaatam mm. do gis yaayam do gis rakam do gis magam do gis mbokam mu ci mom xam nga ni ki su la nee bëgg na réew mi mm. ko bala ngay xam ni kii mooy doomam dafa falu ba paré ñu ne kii mooy doomu diw bu falawul do xam doomam doomam du jàngé ci école bi ngeen di jàngé ci Sénégal doomam du fi defee formation doomam du fi liggéeyee doomam du fi nekk ba paré mu ni bëgg na réew mi gëw ku bëgg réew mi sa doom daf fi nekk sa soxna daf fi nekk sa lépp daf fi nekk nga xam ne bu réew mi doon tàkk yàgg waa réew mi yéenee bokk tàkk-tàkk bi waaye koo xam ne tey am nga double nationalité bu réew mi doon tàkk nga jël vol dem sa yoon wàcc ñu fi ñun ñun ñi mënul daw nag du nangu ku ko taal kon jàmm lañu fi wax jàmm lañ fi def loolu loolay seen yóbbalu bis ànd ak seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla fi yàlla def salaam yàlla yàlla jubbanti nu suñu réew tegal ñu ko ci yoon wu rafet ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réew moo xam ne Cheikh Umar a nga fa Cheikh El Hadj Maani nga fa Cheikhul Khadim a nga fa maam Limaamoo nga fa maam Abdoulaye Niass a nga fa maam Khalifa a nga fa maam Bunt maam Bou Kounta Ndiaye nga fa Cheikh Saadou Ba ma nga fa réew moomu jàmm rek lañ fa war a ñaan yàlla réew moo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi fay door naasiril xaq bil xaq dafa jàng ay xasaayit réew moomu jàmm rek lañ fay ñaan te loolu nag moo aar réew mi te yàlla sax تبارك ينتبه صلى الله عليه وسلم سلم بكو دار بان مختار سلة مولم لن دفع سين مختار سين يبول بيس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داراري له يا الله يا الله